كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فر ومالكي قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كتب أور وير كور ngir gëm yàlla ak sàkku yoolab yàlla ak yéene mu ne Aïcha te nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ñi dañ leen di dekkal ci seen éene yi loolu yi nga xam ne dañ laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ci seen biir mu ne waaw ñi laaj ko bu boobaa nag ñu baax ñi nga xam ne ñi nga ca biir yàlla alak jaam yi ñoom ñi deyaale ci loolu luy nekk seen ate yonent bi ne ñooñu yàlla daf leen di dekkal ci ci seen éene ba tey beneen xadis bi dafa wax ne eh, ana dana am lëli xare boo xam ne dafay songu kaaba gi buñ demee ba nekk ci digge àll ak kerte ndeng ci suuf si yàlla wàccee ci ñoom mbugal maanaam ñëpp dee ñi jëmoon ci songu ak ñañ doon songu ñëpp ñi laaj yonent bi ne boobaa nag ñu baax ñi ci seen biir yàlla daf leen di dekkal ci seen kéene <coughs> di tax mu indi loolu ci bunt bi pour waral pour feddali war ak xéene ak njëriñal éene ci jëf ju nekk ne yontu bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis yi abu hurayrata solo ne ku dundal laylatul qadri ngir gëm yàlla ngir yaakaar yoolab yàlla yàlla baal ko li jiitu ci ay bàkkaatam wax ne na ku ngir gëm yàlla ngir yaakaar yoolab yàlla yàlla baal ko li jiitu ci ay bàkkaatam loolu li ci jaam bi war a jàppee mooy bu kenn or weeru koor ngir aadawoo bu kenn or weeru koor ngir toppandoor rekk nit ñi waaye na nga beesal sa gëm yàlla ne dangay ngay or ngir topp yàlla dangay ngay or tim ngir yaakaar yoolab yàlla na nga jiital tim sa éene ndax innamal amalu bi niyaati jëf yëpp mu ngi wéree ci wërëg éene yi <clears throat> باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان حدثنا موسى بن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة yonent sallallahu alayhi ci wéru koor la daan gëna tabe jëreena ci ibne abbas radiallahu anhuma mu ne yonente bi sal allah sallam moo gënoon a tabe ci nit ñi yonent bi yàlla moo ko bindeeg mbaax ak tabe mu nekk jikkoom waaye mu ne daan gën a tabe nag ci weeru koor waxtu woo xamee ne jibril a ngi dajjeeg moom te jibril daf daan dajjeeg moom ci guddi gu nekk ci guddi weeru koor ba weeru koor wi jeex muy koy déglu alxuraan bu ko jibril di bu jibril di dajeeg moom nag mu ne def daan tabe ba moo daan gën a tabe niir woo xam ne dafay ànd ak taw xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabe <clears throat> jikkoom la ba xam ne loolu yàlla ko ko bindee dem na ba saxaaba yi dañ daan yadd ku ko laaj loo xam ne nii daf koo bëgg ndax dañ koo mës a indil benn mbubu mu rafet am waa ju jug rek ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga may ma mbub mi yonent bi ne ko jëlal bi waa ji jugee sahaaba yi ne ko ah yow xam nga ne yonent bi du gànt sallallahu alayhi wasallam te dafa bëgg mbub mi nga koy laaj waa ne dama dama bëgg mu nekk sama mbubu moo xam ne sama làmbaay bu ma dee moom lañ may lam moom lañ may sàngee loolu nag li mu di tele mooy ne yonent bi du wax du wax déedéet képp ku ko laaj di ngay laaj bu fekkee fekk na ko fi mu joxe ko bu fekkee fekk fi mu mu yóbbalee la wax ju wax ju rafet kon euh, tabe dëgg-dëgg melokaanam la boo xam ne ñëpp xam nañ ko may na ab arab safwaan gilem yoo xam ne fees na xur dafa dem ne jébbalu leen ndax kii mu ngi joxe joxe goo xam ne nii euh, ragalut ñàkk mukk am na ku ñëw laaj ko fekk amul mu ne ko demal nga leb jamono danaa la fayal Seydina Omar ne ko yàlla yàlla yàlla tegu la loolu am benn waa ansaar mu ne ko anfiq wala taxsha min zil arshi yow dundale rek bu ragal ci borom ak aras yàlla ñàkk mu ne bi haada umirtu loolu la ma yàlla loolu la ma yàlla digal kon moo gënoon a tabe ñëpp te tabe googu naka jekk bind la boo xam ne nii bind la bu ko yàlla bind waaye bu weeru koor jotaan nag lay gën a tabe ndax nga xam ne munaasaba eh, gën a fàggu jëf ju baax ci jamono ju baax ndax weeru koor bu fekkee ne ku def benn jëf bu baax benn farata yàlla defal la ko juróom-ñaar fukk ku ci def loo xam ne du farata yàlla defal la ko muy farata kon waxtu tono la na nga xamee ne borom marchandise yi ñi ngi fàggu barab yi nga xam ne seen marchandise yi fa lay gën a chéré ñu bëgg yàlla it dañuy taamu jar jamono yi nga xam ne nii defal yàlla ci lay gën a seere ñi ci góor góorlu di yokk seen man-man ñaareel bi e, Jibril daf daan ñëw ci moom xam nga ne ku am gan gu tedd man ngaa gën a gën a mën a tere la te Jibril xam nañ ne gan gu tedd la te daf daan jàngaat ak moom alquran te xam nga alquran li ci nekk ci digle ay jëf yu baax digle dig digle <clears throat> digle digle dundale digle baax digle tabe digle maye digle fuglu lebal yàlla jot yolam yàlla loolu yeb bu tombé ci wér wi da fay yok yonentou bi salallahu alayhi wa sallam gëna a baax bu féké ne mbaax ak yonentou yok man na ci am باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع, في أن يدع طعامه وشرابه <coughs> buntab ku bàyyiwut wax wax duut wax fen ak di ko ci koor mu jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa wax na ne képp koo xam ne nii bàyyeewoo wax duut wax fen ak di ko jëfee yàlla soxlawut say koor yàlla soxlawut nga bàyyi sa lekk nga bàyyi sa naan kon or duut bàyyi lekk ak naan rek ndax bàyyi lekk ak naan bu fekkee lu la yàlla dagalaloon la yàlla tànnal la jamono joo xam ne yim la daganaloon sax daf la ko aaye comme yim la aayewutoon njëkk weer woowu xam nga ne ba tey yàlla daf ko aaye ndax wax fen yàlla aaye na ko ci lu dul weeru koor jëfee ko yàlla aaye na ko ci lu dul weeru koor eh, jëw nit ñi yàlla aaye na ko ci lu dul weeru koor bu fekkee lañ la loon nag dañ la koo aaye lañ la aaye woon moom waxi noppi am na ñu mën a sonn lool ci or ci sonn ci xiif beeg mar bi sonn ci loolu yépp te lañ aadoxoon di ko def grand place yi ñu doon grand place xam ne duut grand place yi euh, xiire xiirante ci lu baax taxul ñu bàyyi ko lañ fa daan waxtim taxul ñu bàyyi ko dañoo tudd ñaari jigéen ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax seen coono ci koor yonent bi oolu leen ñu ñëw yonent bi ne leen ñu goqat biñ goqatee ay yàpp ak deret rek moo génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li mooy deri nit ñi nga xam ne ci ngeen ñu kon ñoom ñi ngi oor ci li nga xam ne dafa dagan ba pare dogee li nga xam ne dafa haram mooy li nga xam naka jekk haram na ci waxtu wudud dul sax weeru koor moo tax ku oor na nga sàmmuwanteeg euh, jikkoy weeru koor lañ jàngoon ci hadis yi passé fa in imruun shaatamahu aw qaatalahu falyaqul in imruun boo ooree dal nit di xeex ak yow wala mu lay saaga sax ne ko man dama xoor fàttali ko ne jikkoy aji xoor moom xeexut saagawut saagaantewut باب هل يقول إني صائم إذا شتم حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن أبي جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا, إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه buntëb ndax aji xoor ji dana wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël nañ ci abu hurayra te mu ne dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dafa wax ne jëfi doomi aadama yépp moom la ñeexal lu may or or man moom man la ñeexal waxoon nañ ci tuuti or yàlla la ñeexal ndax or mooy li nga xam ne nii moom kenn duñ ko kenn duñ ko defal kenn yàlla rek moom lañuy ñuy xooral ndax bu fekkee nit ñi nit ñee tax nit ki wax ne dafa or kooku lu tax mu or ndax bu tëjoo néegam dana lekk dana naan waaye kii xoor nga xam ne foofu digganteem ak yàlla rek la moo tax or yàlla rek ko moom moo tax yàlla wax ne koor man la ñeexal te maa koy fay ndaxam jëf yépp yàlla la ñeexal waaye or mooy li nga xam ne nii leneen mënut cee dugg bu fekkee nit ki dafay oor ngir yàlla ku wax ku bëgg a oor ngir nit ñi mën ngaa wax ne danga or oor fekk fekk la ooroo waaye oor yàlla rek la ñeyal moo tax ñu ne yàlla ne man manit koor man la ñeyal maako ko man man la ñeyal am na ñu ci déggee ne dafay tegtale ne jëf yépp yàlla dana ci fay xàq jaam yi nga xam ne mu ko ameel ñeneen ba des jëf yu koor moom yàlla la ñeyal moo tax moo koy fayal boppam te du ko fayee beneen xaq bu nit ki ñëwee yow ma xiyaamati am ay tooñam ñu jël jëfam yu baax yu fayee ko tooñam yooyu ñu ne or du ci bokk ndax yàlla la ñeyal man maa koy fay ndax xam nañ ne yàllaay fay jëf yëpp bàyyi mu ne maa koy fay mooy ne yàlla ci boppam moom mooy fay koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne koor pakk la maanaam dana dox diggante nit ki ak euh, def lu ñaaw mooy dafay dox diggante nit ki ak safara kenn ci yéen bu xooree mu ne du sëy du coow maanaam du xuloo bu fekkee dafa am ku ko saaga walla muy xeex ak moom na ko wax ne koo man aji xoor laa yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne maa ngi gëñ ci yàlla mi nga xam ne suma bakkan gi ci loxoom la nekk ne xeti bakkan xeti gémmiñ aji xoor moo gën a teey fa yàlla gëtt misk beneen riwaaya bi bii dafa teg ne moo gën a teey dëkk ak misk ndax aji oor ji am na ñaari kontante kontanteem bu doge ndax aadaay doomi aadama coonoy xiif eh, bu doge mën naa kontaan ngir loolu waaye kontante aji or bu doge ngir yaakar yor yàlla kontaan aji hor bu doge ndax aji hor bu doge yàlla daf koy nangul ñaanam kontaan aji hor tim bu dajje ak boromam dana kontaan ci ooram bu ko yàlla fayee yoolab kooram benen riwaya bi da wax ne daxaluhu fumi saa'imi ataba inda allah min rih al misk yatruku taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli da fay bàyyi lekkam bàyyi banexam ngir man nga assiyaamu lii وأنا أجزي به اللهم صل على سيدنا